toujours dans votre acte du jour de ce 3 octobre suñ jógee ci Omar Faye dañuy dem fële ca plateau TFM xool ñi nga xamante ni ñoo nekkoon ci plateau bi di chroniqueurs yi journaliste, bonne réaction bonne impression la ñu am ci li nga xamante ni gis nañ ko ci arrestation tout azimut jëmale ko ci kii di journaliste Cheikh Yérim Seck kii di Bougane Gueye Dany ak ki nga xamante ni le chroniqueur Kader. Nata la chose la plus décevante <coughs> mooy benn secteur. Mm. le fi pouvoir bi defagum assise réforme structurelle. assise de la justice. et c'est le pilier bi nga moi maillon faible en fait parce que honnêtement si c'est ça <laughs> le ministre le garde des Sceaux Ousmane Diagne et ses procureurs man je révise mon jugement. franchement on a tous eu un. mais présomption de bonne foi non son passé glorieux. Mm. franchement maintenant son passé glorieux c'est fini maintenant il est en responsabilité. passé glorieux non, lu fi nekkoon la mais ne passé li mu c'est nga ni momla def ba pour parce que attention nit dem na ba au crépuscule de sa carrière yàq li mu def donc on ne va pas s'accrocher juste à un passé glorieux de grand procureur de grand justicier et autres. ba faf lu ci dara en réalité et amu place parce que li à caron sincèrement moi les poumons na yàng fii ci oui bon modèle justice une justice bu forte moo ñu mën a génnee ci lu la justice n'a pas à se mêler à ces petits détails là mais voilà on laisse la doxa s'emparer de ay diw down qu'est-ce que c'est que ça en fait <laughs> publier des noms mais daw ça ne se présume pas nit balaa ñu naan daw na wala balaa ñuy kii day fekk ñu soxla ko mais soxlaa goo nit woowoo ko mesure conservatoire sax soo koy def am na loo xam ne mais saa duñ si jaaraat justice am na noo xam ne noonu justice du nëbbatu buy dox. justice li muy def dafay leer justice du nëbbatu wala di làqatu ci ginnaaw ay dama jot instru non justice buy def bu soxlaa nit dafay def mu leer te bu ko tegee fu wóor ne diw soxla naa la wala dafa am ci nekk toogal fii bu dem mais ñu mën a xam. mais tay ba dem ci japp nañ ni ku nekkon ci pouvoir bi rek waratoo génn wala dañ la soxla et puis les gens s'emparent de ça bo tukkee sa tukki yoonu bopp sa ñu ne dawna na et puis lolu en fait <laughs> man ce que ce qui me en fait ce qui me gêne moy japp yi qu'est-ce qu'ils cherchent parce que ça n'impressionne personne yaakaar ni parce que da ngay japp nit ñi opinion opinion opinion politique ni nit ñi dañuy lo nopi lo kenn mm. franchement et li fi jaar woné nako mm. xam lu détestable ci ni en fait c'est ça ni Macky bi mais Macky bi fi lan la ñi wax bi lan la mais tout le monde c'est-à-dire affaire bi gis nga nak Sénégal ku ni ko ba nit ñi nax sa kenn y compris ñi nga xam dañ ko nangu ci seen loxo dañ ci am wàll té dañuy continuer di wax ñoom waxatuma la nak tous les autres acteurs journalistes société civile et tout le monde mm. kenn mënu ci génnee kenn mais cette façon détestable de penser que boy ñun la non nguur dafa am ñukoy yoon mais moomuñu ko mm-hmm teg bu ñu yaakaar ne koy bayé kenn duko bayé en fait kenn duko bayé kenn té li amul njëriñ parce que kenn du gouverner dans une tension situation de tension bo ci gouverner nguur dong mo qu'elle perte kenen du ci perte. Hmm. kenn amul intérêt gouverner dans une situation de tension or on a tellement de choses à régler gouvernement mon ngi nii moom ci les li nga xamni wax situation économique mais en fait c'est et puis les craintes aussi des populations. chaque jour nous xëy am et le gouvernement lui-même a dit plus grave que li ñuy topé nit hmm opposant politique bu wax ni bu ngeen moytul du ngeen mën fay sal di ngeen salaire gouvernement bi ci bopam wax fi déficit bo xamanteni ni bo ci taxawé mais waxuma la ñàkk fay salaire mais pays en ruine mo gën a ne na da da ngeen di salaire. Mm-hmm. et puis ça c'est des séquences qui arrivent chaque fois câble câble est venu. Mm-hmm. <laughs> le parti socialiste lui a dit mais dans trois mois tu ne pourras pas payer les salaires c'est la même chose qui est arrivée bi nga xam ne euh, Macky Sall remplacé Wade. d'ailleurs première visite première visite première visite Macky Sall lan lan moo tax mu dem France wuti xaalis ba opposition yëkkati loolu ne dafa daw wuti Khalis pour faire a fay salaire mais mënul gouverner ba mais le débat politique là, on laisse ce débat là se faire demandez ça à ko jarul parce que y a des gens qui le communiqué du PIT mais c'est quand ces problèmes là se sont posés que beaucoup ont été au courant. parce que ça peut rester confidentiel nous bàyyi mu et puis dis-nous nga da ngay même Ousmane Sonko ça lui est arrivé dem place de la nation taxaw fa des manifestation mais kenn ba mu ba mu ne ci jamono joju wax sénégalais man bu woté bu ngeen ñëwatul dotuma génn parce que ken gënum dugg fi génn mm-hmm. les opposants aussi on peut les laisser faire leur manifestation ils vont juger est-ce que am nañu mobilisation wala mënuñu mobiliser il est où le problème ay BRT nangam nangam gis nga c'est prouvé que manifestation ñu autorisé yëpp ça se passe bien maintenant on n'a pas encore retesté ça on part de travers sur li nga xamné ne mom mm-hmm. lañu sip ci ni république bu war mais vraiment ñu xamni man xaw ma ku len di xelal enfin est-ce que amna sax ku len di xelal mais justice man franchement ni kon ñom li ñi gis moy mbir bi nga xamanteni mo moo gën manam fi ñi amé mbetteel fi ñi amé njàqare fi ñi amee déception moy bi fi régime bi togué batay ben secteur rek le fi régime bi taxaw def ci kopparu Sénégal pour ñu def réforme de la justice réforme de la justice bobu tay mom lañu gis ni que mom dong lañ fi téggu alors que première quoi yi nga xamanteni gis nañ ko ñu ko gisé ci walu justice moy ay arrestation ak ay convocation tout azimut limite lo xamanteni dafa jëm ci liberté d'expression nit ki wax xalaatam ñu jàppale arbitrairement donc c'est des choses yo xamanteni c'est tellement décevant tay ci Sénégal ak fi ñuy waxé au 21e siècle li di démocratie ak place bi nga xamanteni Sénégal occupe

ak liñu ñuy publier ci li nga xamante ne mooy site officiel ministère des finances bu Sénégal ak lii ñu ñu wax mu concerne ñëpp muy doon benn information boo xamante ne dañ ko relayer publiquement ginnaaw face to face la woon man mënuma jàpp ni que loolu am na muy guerre des chiffres chiffres yi ñu ma wax gëm naa ni su dee loolu moo am kon Sénégal warul mën a lever fonds ci li nga xamante ni mooy septembre bi foofa ca UMOA jël fa 35 milliards ndaxte képp koo xamante ne am nga chiffres yooyu jëm ci wàllu dette jëm ci sa wàllu produit intérieur brut ñu tuddee ko PIB jëm ci 10 pour doo mën lever un franc jëmale ko ci li nga xamante moy à l'international kon man gëmuma lolu lolu lañ ko jappé kan moko japp manam moy li di cybersécurité ñoko convoqué bañ ko convoqué gisunu ko porter plainte dégguñu aussi qui nga xamante moy procureur daal di auto autosaisir na ki di avocat premier ministre di maître Bamba Cissé mom nee na amul benn plainte bo xamante déposer déposé na ko ci turu ki di client am ko ci Cheikh Irim Seck sénégalais nak ñi ngi poser wu question première réforme bi ñu teg def ci muy assise de la justice est-ce que tay première quoi yoy mënon na